alhamdulillahi rabbil alamin Bayre Njaay bi nga xam ne moom lañu leen fagguloon te ñu bari doon woote fekkoon mu jeex jàppandiwaat na ci jamono ji ñuy wax ak yéen ngeen di dégg mu nekk Bayre Njaay boo xam ne comme ni ñu leen ko waxe woon rek defar gi dafay laaj lu bare bare bare ak ay déplacement moo tax yomb la defar waaye itam liñ ci sonokas am ni ko nit ñi di yittewoo dëgg dëgg dëgg du bëree noonu waaye nag amul kenn koo xam ne dinga ko jot jëfandikoo ko lu toll ci ñetti fan trois jours te gisoo ci résultat bi nga xam ne moom lañ la wax kon képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci wàllu commerce ak fànn gu mu ci mënti doon incha allahu taala fii mu toll nii Bayra Njaay bi jàpp na lépp liggéey nañ ko ba mu mat yow dañu lay jox rek ngay xëy. di ci laal incha allahu taala kon numéro bi mi ngi nii 77 335 14 14 livraison à domicile la Sénégal la gratuite incha allahu taala ki nekk bitim réew tam réew mu mën a nekk mën na cee jot ci ndimbalul yàlla ci jàppandalu GP yi incha allahu taala ñoo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.